rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir suñu Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci bile jitaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fës dañu koy doreek euh, journée xasida tey ci Touba Mbacké ginnaaw bu mun Mountakha woote euh, Touba tey meloon na ni bisub 18 safar danañ leen ko faram ci biir xibaar yi Sénégal mi ngi xaar ay matériel médical yu war a jugee ca Turquie ginnaaw euh, jokkalante bi dox ci président Macky Sall ak ki président. Turquie di Erdogan président Macky Sall moo fësal boobule xibaar ni ki démb ñu àddu wax ci leneen accident bu métti métti bi am ni ki démb ci guddi ci diggante jurbeel ak Bambey ay ndaw yu jóge woon cees doon dem ci bisub xasidi ba ca Touba benn Peugeot 307 moo dal di dal ci benn camion ba juróom-ñaar ñi ci nekkoon ñëpp ñàkk ci seen bakkan ñu jeexale li gën a fës ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale amal tey ci àllarba yem ak fukki fan ak benn ci weeru août mbokk yi xarit yi li may li ponk yi ngeen taaxeer lu bàkk bi jàll ñu fam fàcc salaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu lañu koy dóoree faram-fàccee ak bisub xasida ba ñu doon amal tey ca Touba Mbacké ci ndigalul Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom mi nga xam ne moo nekk xalif général kullu murit ci li nga xam ne moom moo di tolluwaayu réew mi Serigne Mountakha woote bés bu mag bu mag boo xam ne tuuba tey feesoon na dell ak i nit mu mel ni lii lee di bisub 18 safar fu waay sànni mbàttu mu takk murit yi wuyu si fépp ci àdduna wërngel këpp ginnaaw Touba ci biir Ndakaaru ndakaaru jumaa yi Masalikul Jinaan itam ak ko jiite di jëwriñ mbàkki yu fay génne xaalis bu takk boo xam ne ëpp na fukki million dal di koy dal di koy euh, jëmale tey ci bés bi nag ginnaaw mu doon ndigal lu bàyyee ko ci sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke ca Masalikul Jinaan itam dal di nañu fay amal li nga xam ne moom moo di bisub xasida boobu ndakaaru ñoom màggal nañu ko comme na ko waa Touba di maggale ci ñi munta dem ñu àddu wax ci leneen lu ñeel jàngoro yu coronavirus jokkalante Macky Sall ki nga xam ne moo di président bu Turquie di Erdogan dafay firndeel ne mën nañoo am solution ci lii lee di jafe-jafe yi ñuy dund ci wàllu matériel yu jëm ci eh, xeex jàngoro ji di Covid 19 président Macky Sall mu amal benn tweet di firnde rek ne président Turquie di Erdogan fas yéene naa yónnee lu tollook douze tonnes yoo xam ne ay matériel médical la ci réew mi di Sénégal ngir jàppale leen ko ci xeex mbas mi ñu àddu eh, des ba tey ci li nga xam ne moom moo di jàngoro yu Covid troisième vague bi nag tiital na ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa kër doktoor ki la di docteur Cheikh Omar Thierno Koné di l'anesthésiste réanimateur moom dafa dal di yëkk ci ay kàddu jëmale ko ci président Macky Sall ngir nag ñu dal di confiner ndakaar ci diiru fukki fan ak juróom jàpp na ne looloy solution bi ngir nag feebar bi ne mu tasaaroo ci biir Ndakaaru ndax Ndakaaru moom la mbas mi gën sonal ñu àddu wax ci leneen accident bi nga xam ne moom moo am ci diggante Diourbel ak Bambey ci dem bu ci guddi ay ndaw yoo xam ne ñoom ñoo doon jóge Thiès doon dem ngir fekke ji bi bisub xasida bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké woote ca Touba accident bi nag benn Peugeot 307 moo daw ba dal ci benn kamion bu taxawoon ci wetu tali bi loolu nag moo jur boobu li accident bu métti métti ba ñoom juróom ñaar ñi nekkoon ci oto boobu yëpp dañu dal di euh, ñàkk seen bakkan kenn moo ci am ay gaañu gaañu yu métti métti ba dal di nañu koy évacuer ci l'hôpital ñu àddu wax ci leneen ginnaaw li nga xam ne moom la ñu dal di nemmeeku euh, ca Parcelles Assainies teg nañu fa loxo benn woykat bu siiw bi wuyoo ci turu AD te la ko jàppee mu di wàllum jaay yamba euh, du ñu ne guléet te mas nañu ko cee teg loxo bu ñu sukkandikoo euh, ci li nga xam ne moom moo di euh, source bi maanaam récidiviste la boo xam ne jàppoon nañu ko fi ci wàllum drogue ginnaaw bu ñu koy teg loxo nag moom mim na ba sonn waaye mujjee nañoo fekk ci moom luy firndeel rek ne li ñu ko doon toppee ba koy yeeru boobaak léegi dëgg la ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo mu di brigade de la police bu Parcelles Assainies ñu àddu wax ci leneen ginnaaw li nga xam ne moom moo di euh, coowal Serigne Fallou mi ñu faat ca euh, Kër Massar euh, ci coowal jigéen te ñu jam ko paaka mu ñàkk bakkanam ci saase mu di Fallou Mbaye te ay mbokkam doñ ko ñaawlu ñi ko defoon daw mujjee nañu leen a teg loxo ku ñuy wax Babacar Ndiaye am ñaar fukki at ak benn di ab tapissé dëkk ca Malika ak ku ñuy wax Serigne Bara Ñing di ab menuisier dëkk ca yëmbal benn brak ñoom ñaan ñëpp teg nañ leen loxo ni ki démb ci guddi ca yëmbal lañu leen fekk ginnaaw bu ñu leen doon wër mujjee nañu leen a teg loxo ba ñu ngi ci loxo yoon ñu àddu wax ci leneen lu doy waar loo xam ne sénégalais yi nekk ca Maroc ñi ngi koy dund ca Dakhla ginnaaw lu tolloog juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yoo xam ne ay sénégalais lañu ña ca Maroc taga tembe fa ngir nag bëggoon ñëw ci seen réew mi di Sénégal lu méttee métti ñaar ñi di ay xale yoo xam ne seen i at mën nañ ko natt ci fukk ak benn jàpp fukk ak ñett kenn ka di jigéen ju wérul maanaam jigéen joo xam ne dafa wan lor. ca des di ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen bu ñu sukkandikoo ci kàdduy yi Cheikh Ahmadou Bamba Fall mi nekk président itam ak fondateur bu village du migrant moom moo daal di yëkkati yooyu le kàddu ne jafe-jafe ñu fay dund jamono ji lu metti la loo xam ne daal ku ko gisul mënuñu la ko nettali ba tax na seen kàddu du jog ci di sàkku ci autorité yi ci biir réew mi ñu daal di mën a wax ak consulat ya nekk ca Maroc ngir nag ñu def ci seen kem kattan ba sénégalais tàggatémbe ca Maroc mën a dellu ci réew mi di euh, Sénégal ñu dem ca Saly daal dinañu fay teg loxo juróom ñaari doomu aadama yoo xam ne ay cambrioleur lañu ginnaaw lii lee di waa Mbour ñu ngi ko doon joytu euh, boobaak léegi nag amuñu ci woon benn saafara teg nañ ci loxo juróom ñaar ñoo xam ne jamono ji ña nga ca commissariat bu sali waa sali nag ñoom seen xel dalandi na ginnaaw nag yooyu le samba boy te ñu jàpp ne ñoom daal ñoo doon def yooyu le xeetu ñaawteef ca sali ministre de l'environnement et du développement durable di Abdou Karim Sall yëkkati na ay kàddu jëmale ko euh, ci li nga xam ne moom moo di sase plastique yi ñuy jaayee ndox ngir nag ñu dal di koy dakkal ba tax na lu tollook juróom-ñaar téeméeri production juróom téeméeri producteurs yoo xam ne fas yéene na jàmmarloo ak ñoom ngir nag ñu dal di dakkal lu ñuy produire tey lu tolloog fanweeri junni emploi yoo xam ne bu ñu moytuwul dinañu ci ñàkk seenum xëy bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom moo di mille vingt 2024 bu 8 janvier 2020 Euh, moom nag dal dafay firnde rek ne li ñu doon wax ci wàññi li di plastique yi ci réew mi ndax dafay indi ay jafe-jafe ci dundin gi loolu la ñuy dëggal ba bu ñu moytuwul am na ci ñoo xam ne ñiy defar ndox mi euh, dinañu dal di am ay jafe-jafe ndax dañuy dal di dakkal li nga xam ne moom moo di boobule liggéey. woykat bi lee di Papa Diouf xel dal dina koy daj mu di ñi dal di woote mileem ndaje di FEMUA festival des musiques urbaines damu da danu mabo bi nga xam ne moom la ñuy amal ci bisub juróom-ñaari fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru septembre. décembre gi ñu dëkkmal moom Papa Diouf nag moom moo doon woykat bi nga xam ne moom la ñu tànn ci réew mi di Sénégal Sénégal di réew moo xam ne moom moo nekk invité d'honneur ba ginnaaw nag ña nga leen fay xaar ak lu tollook juróom fukki nit yoo xam ne ab délégation la ñuy def ngir ñu dem wane li nga xam ne moom moo di culture Sénégal tem ba nii lay tëddee ci lu ñeel wàllum diggante euh, Europe ak Afrique ci wàllum jàmm ak luy suqali ñaari continent yooyu ñu àddu wax ci Wally Balago Seck ba mu ràpp ci ay tuuma teg ko ci wetam moom daal dafay dëggal saa su nekk ne dimbali doomu aadama yee ko ñor mi ngi ci social waaye dugal na loxoom ci lile di production bi ba tax na mu daal di dëggal komba ki nga xam ne moom moo di la ni ki démb la ñu doon amal boobu les signature du contrat waaye que Feugeula war a dajeel fësaluñu aw turam ñu jeexale xibaar yi ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l' action sociale ci àllarba yem ak fukki fan ak benn ci weeru ut ci test yu ñu jot a def juróomi téeméeri nit ak juróom ñaar fukk ak ñaar ñoo dellu si am doomu jàngoro bi fukki nit ak juróom ñeent ñàkkaat nañu seen bakkan dolleeku ca lim ba ñàkkoon seen bakkan ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett yu ñu entré woon ci hôpitaux yi wér nañ ba ñibbi seen i kër juróom benn fukki nit ak ñett ñu ngi Sowétas tax ñiy sàmmanteeg wérgu yaramu doomu aadama yi di ci la kook ministère de la santé et de l'action sociale di sàkku ci askan wi ñuy gën di woyal digle yi te bàyyi tere yi bokk na ci di takk masque laal zel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi mbokk yi xarit yi lii lañ leen dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndar keppe di ñaan ngeen di woy suñu programme te di leen ñaanal fanaanum jàmm di leen jox di daje ëllëg incha allah